waat incha allah daañu dellu si waat fi nga xam ni moom moo di euh, ci morceau boobu léegi léegi léegi daañu ci dellu si waat ci morceau boobu léegi du yàgg incha allah maa ngi dellu si waat ci Youssou Ndour ak Mbaye Dieye Faye fii ci Grand Théâtre National ci anniversaire u Viviane maa ngi nekk ndok euh, ñoo xam ni ay séddoo lañu ay xarit lañu ay mbokk lañu salaamaaleykum ku baax waaleykum salaam DJ Boubs waaye noo tuddu maa ngi tudd Souleymane Mbaye ñu gën ma xam ci Jules Mbaye Souleymane Mbaye alias Jules Mbaye Euh, da ngeen am xew-xew bu mat fii ci Grand Théâtre ñen ñooy organiser ak seen mbooloo moomu nu mu tudd moom. waaw ah, Boubacar jërëjëf suñu xew-xew boobu vendredi le set la ñu ànd ak ceek la convergence des communicateurs traditionnels républicains dirigés par Daha nga xam ni. convergence des. communicateurs communicateurs traditionnels républicains. maanaam communicateur traditionnel yiy jàppale son excellence monsieur Macky Sall hmm. président de la République du Sénégal chérie Mariam Faye Sall law law bee neex a jàngali pël <laughs> waaw de nand naa loolu euh, dirigé par Daxa Seck dirigé par Daxa Seck di giw lu judd président Macky Sall Daxa Seck giw président Macky Sall Daxa lu président di def dafa war a ñëw taxaw waaw maanaam euh, doole jën ndox te nag nit booy dem te amoo ko la xam léegi nga réer dëgg la moo tax Daha Seck moom xam na président de la république moo tax mu jël convergence bi fas yéene ànd ñu def programme boo xam ne ak Pape Diouf pour li recettes yi ñu ci am ñu dem fësal li nga xam ne mooy le président de la république def ndax dijee président li mu def bari mais am na ñoo xam ne gisuñu ko am na ñoo xam ne dégguñu ko te yéen yéen ko war a wax ñun ñoo ko war a wax àndal ni ma sama jigéen mu ngi koy wax Fama Lawbe muy Fama Saw waaw Fama Lawbe Fama Lawbe ne nii yéen gis ngeen Fama Lawbe Fama noo def maa ngi fi dijee ah, Fama sa tagal la ah, tuddee naa la ko ko àndal keneen kookoy Seyni Gawlo Seyni Gawlo seeni Gawlo noo de maa ngi nii rek sant sa jaune baax na de tuddee naa la ko eh, maa fi bëri turandoo doom alors euh, nga ne da ngeen di fësal li président def hmm. loolu naka la ak kañ la vendredi 7 la bii di ñëw incha allah fii ci grand théâtre vendredi 7 fii ci grand théâtre vendredi 7 ak octobre ak Pape Diouf waaw jël ngeen xale bu xale bu xew xew ci jamono jël ngeen xale bu mën way loolu la xam jël ngeen xale bu mën spectacle jël ngeen xale bu lekkul dara bàyyi ndayam du loolu la lan la kooku di wax alaaji Amadou Mbaye Garmi sama géwél bay wax ma ne alaaji Amadou mbay Garmi nu muy wax nu muy wax sama kii euh, Nabir misaan non non non boo waxee Youssou Ndour mu ne euh, Boubacar tudd nga ku lekkul dara bàyyi ndeyam <laughs> waaw dëgg la ah, looloo xar looloo tax ñu jël Pape Diouf mi xew ci jamono dëgg la nga xam ni fa tabaarakalla nit ku baax la mhm. mais nit ku xam li muy way la mu jël ko fas yéene ànd ak moom ñëw fii ci Grand Théâtre Dijé. Mhm. incha allah vendredi. Mhm. ku ñëw di nga gis lu doy waar. déedéet ñu ngi woo géwél yëpp. Uh-huh. di woo géer yëpp. mais mais mais géwél yëpp bu ñu ñëwee dañuy xëccoo micro bi de. waaw. wala c'est normal. c'est très normal. Ah. xanaa xamoo géwél wax. géwél wax. <laughs> Dijé. waaw boo fexe woon ba fekkee réunion géwél. waaw nga nga gis lu doy waar. réunion géwél. réunion géwél. ba ñëpp war a wax. ñëpp bëgg wax te kenn duñu sa morom noppit te ku jóg nii man buur géwël ah, la waay sam foofu baadool am fa ku jël parole rek man maay buur waaw waaw moo tax ñun ñëpp ay buur la dëgg la moo tax bis bi <laughs> uh-huh. fii dina toj kuñ ko dara jaale ah, kooku mooy la première dame ah Marème Faye Sall mu baax mi ku social nit ku baax nit ku jàppale président de la république ma ni palais bii mm-hmm. bi fi premier président duggee mm-hmm. ah ci la fi cuuraay xeeñ pale bi pale pale bi kon daaw xeeñ cuuraay daan am ay pis pis déedéet ah, ñëpp xam nañ ay pis mais dama ni ay parfum quoi pis pis dans Sénégal waaw ba buftu bay wal waaw ki njëkk nekk première dame du Sénégal fii dootul deñ muy Marème Faye Sall loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal dëgg premier cuuraay bi fa njëkk a xeeñ Marème Faye Sall moo ko fa taal loolu la yàlla dogal ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan premier dëxin bañ fa njëkk a togg tam da ngay wax ni Marème Sall ko fa togg parce que dëxin hmm. mbëpp <laughs> jox ma ki nga àndal. mooy Fama Lawbe. Fama noo def. maa ngi fi rek. Fama yow luy sa taxawaay ci guddi gi Fama sa ah, tagal baax na de. sama taxawaay ci guddi gi mooy fas yéene sargal président Macky Sall ak Marème Faye Sall loolu rek a mat ñor ak Marème Badiane. am na benn mouvement bu tudd Macky ñu ñor. waaw les communicateurs traditionnels. président ah. Macky Sall. ah Macky Macky Macky ñu ñor de. waaw Macky ñu ñor. Euh, yéen Macky leen ñor. Macky ñu intéressé. xom kooku diggee. kooku bi Bamba jullee géej président Macky Sall moo feeñal pétrole bi. ñaata président moo fi taxaw ñaata président moo fi nekk si Sénégal fii waaye ba Bamba jullee géej da koo tette di ko tette ba président Macky Sall toog mu feeñal pétrole bi koo koy président Macky Sall ñu koy woowee jàmbaari président Macky Sall koo koy jàmbaari Sénégal ma ni ko bi Bamba jullee géej yaa feeñal pétrole bi koo koy président Macky Sall daal kenn demul loolu daal foor na kon daal ñu xaar ba vendredi lépp dina leer léppay leer incha allah incha allah bu soobee maa ngi woo sama mbokk lawbe yi nag ndax nit lu muy def lu ne rek na woowi mbokkam ndax guddi gi ñun ñoo ko moom ñun géwél yi mhm. lawbe yi mhm. ñeeño yi mhm. njaago yi séeréer si bawuñu kenn mbokk Sénégal la ñu wax seen doom waa Pikine Fama Lawbe moo ngi leen di woo ci bis ba bawuñu kenn fii ba Sénégal ngay gépp woo naa leen rafet ak mag Sall waaw waaw soxna si yow noo def maa ngi nii rek di sant yàlla bu baax. waaw yow tam sa jaune fës na de yaa ngi ci dara de. tuddee naa la ko. Ah, lii moom yànji na daal yow noo tudd. tuddee naa la ko. noo tudd yow. man maa ngi tudd seeni Gawlo. Seyni Gawlo. waaw a ah, yow Gawlo ga ga yi de ci lañ bokk. waa Gawlo yi moom ci lañ bokk. ku leen ci woo ku leen ci woowul gaynde yaa ngi ci. Gawlo yaa ngi biir ngi ci biir. waaw ah, luy sa taxawaay ci xew mi. xanaa nag kontaan rek ci bis bi. ndax lu toll ni président de la république ñu koy defal convergence communication traditionnelle géwél yi di tëgg programme bu mag la 7 octobre kontaan ci rek ak bég ndeysaan kon daal euh, gawlo yëpp dinañ ñëw la 7 bu soobee yàlla gawlo yëpp a ngi koy pare incha allah Youssou Ndour ay pee nag daaw waaw Ablaye Daara Mbaar Mata Daara Mbaar ma jama Yacine Daara ma ci loolu mooy pee ah, tey mooy anniversaire am waaw mooy anniversaire am ah. joyeux anniversaire waaw ne ko moo jàpp ci bis bi nag mhm. jàppale ñu nag ndax lu jin njaagate rek mooy njaag nag moo ñu jàppale ci bis bi ki nga réeral ki nga àndal mu wàcc la boo réeree boo moo la réeral Youssou Ndour moo ñu jàppale ci bis bi moo ñu jox télé moo ñu jox léppam di ñu woo di ñu nemmeeku yàlla na ko yàlla teral Ablaye daara mbaar ma taa daara mbaar ma jama yaasin daara mi ci loola maa ngi woo gawlo yëpp nag na gawlo yëpp ñëw inchallah Pikine Thiès Kaolack Touba kenn des na ñëpp ñëw woo nañ leen ci bis bi la 7 octobre inchallah Grand Théâtre loolu loolu loolu dara du ko fay euh, mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi ñii nag euh, dañoo am xew bu rëy fii ci Grand Théâtre kon daal vendredi 7 vendredi 7 bourse ana daxaa moom waxu woon li dafa waxoon mooy ñëw waaw xam nga wala wax ba am ko la waxal da ngay noppi daxaa néew fi waaye mel na ni mi ngi fi <laughs> sa waay sa waay waaw mu ne wax ba am ko la waxal da ngay noppi waaw kon daxaa day noppi rek yéen ngeen koy wax dafay noppi ñu def ndax ko am kut doo lakk dëgg la mais réunion géwél hmm. kañ lay am nga woo ma ma ko réunion géwél réunion géwél bu ñu paree ci bis bi uh-huh. man dinaa la woo uh-huh. xam nga lu tukulóor yi di wax waaw mooro ko moori mi ni potaani moore ko moore min cukkni potaan ah, kon dégg nga eyi <laughs> na kon ba vendredi incha mais tamit vraiment ñu lay gërëm gis nañ sa taxawaay gis nañ ñu ngi jàppale di gërëm tamit Youssou Ndour bu baax a baax a baax président Macky Sall PSE bi mu wax man xamul naka laa ko tuddee ñu koy wooye plan Sénégal émergent mais dama naan président Sall mi nga xam ni mooy l' espoir du peuple mooy PSE président Sall espoir du peuple xanaa neex. neex <laughs> luñ ci waxati aw ma dara lu ma ci ñu dellu si waat ci Youssou Ndour ak Viviane en attendant de recevoir Seka en attendant de recevoir le père Idrissa Diop en attendant de recevoir les jeunes de Sacré-Cœur et puis d'autres invités ce sera dans quelques instants la suite de l'anniversaire de Youssou en compagnie bien sûr de Viviane et de Mbaye Dieye Faye Monsieur Mbaye Dieye anniversaire ice cream Mame